sëñ tuubaa tukkeem bii. damay dégg ñuy faral di wax naan dañoo weesu sëñ Touba demoon ci géej gi waaw loolu ku ko weesu foo jëm. jëm waaw ah, dëgg la de. sëñ Touba demoon ci géej gi sëñ Touba yoonu géej gi la mën a ñëpp di. dëgg la leneen lu mu fi def ak lu jëf jee wuute wuute yeneen jëf. ñeneen def nañ ko. dëgg la waaye juróom-ñetti at yu manqué yetti weer nga ànd ko sa noonu jamono kenn musulaa tegal cin ni musoo daw bu soo raf nga dem ba gisatoo koo xam gisatoo loo xam ngay wàcc ci ay territoire yoo xam ni kenn xamu la ngay sa jénn jëmm kenn du la toggal kenn du la fóotal te mus ta raf mus sa daw mus ta weddi yàlla mus ta faat waxtu mus ta julli jàppul mus sa jullee mel ni njàpp ñaari póot am nañu ko man si waa Mbàkke loo daa lekk mu ni taami libaasi masharabi bi jaahihi atat nii bilaa kasbin loolu ba bilaa kasbin la dal baxari bil basi ci yoonu géej gi ci la sëñ Tuubaa wane ñi mu àndal ak ñi mu àndalul ak ñi ko topp ak ñi ko topp népp ni maa leen man moo gën a ñeme ñëpp moo man ñëpp exilam bi moy li gëna reuy ci miracle moy namam li nga xamni mom lay badne xoo diko sapano nee moy sama daraja sababu xaybati xaybati an allah arada an anala minhu an akuna lolu kuko wessu ci lo jëm dara mom dong la ma sa def loo xam at mu jotati ci addu mu sant nañu def ko magal ko ñak ci lañu man mën lépp te magal gi bu ci yàlla àndul won kuko def mel na at ko ko tollanti. lay wax nga deug na ci sama nopp. ku ni la ma yéene woon mënuma ko ndax ren jii dama doon yeggale sama kër dégg naa ci sama nopp ku wax ni la ma bëggoon def sax mënuma ko ndax ren jii damaa ajale woon sama yaay wala damaa ajale woon sama papa dégg naa ku ni ren jii la ma yéene woon mënu ko ndax dama ci doon ngénte ngéntal taaw waaye bu soo dégg benn murit bu ni la ma ko ndax daaw damaa màggal barke borom Tuubaa tey busra dëgg la de wala te li ñuy ñàkk ci màggal kenn du ko ñàkk ci céet mbaa ci ngénte amul ci benn événement ci te buñ ko doon def deux fois par an attan mën nañ ko attan nañ kon ku ne xam ne lim ci digg mën na ko sëñ Tuubaa nee na mbooleem li ma man fay laa ci dàq Tuubaa la toxoo nee na li ma xamal ne sama ñaan nangu na mooy Iblisa rab rab ñaari njabar genn gi mu sànni ko ci xolub sëriñ su xañaan si ak ceddo yi genn njabar gi cees mu sànni ko ci xolub doomi soxna yi ak tubaab yi tubaab yi ragal ma am ci man ay mal fondé jàpp ni damay xëccoog ñoom lislaam mhm. jàpp ni damay fetal jihaad doomi soxna itam fii rek ak adduna ak ceddo yi nee na bataaxal yi daw ci sama kër gi rek yaay fexe nangam yaay def nangam te sëñ tubaa jàmbaar la jàmbaar du miim sëñ tubaa du miim loolu la sëñ Saliou Mbacke donn sëñ tubaa sëñ Saliou Mbacke du miim du weddi sëñ tubaa nee na bu la tuuma safloo doxal na nga daa doxe boo ci doonee dara loo daw daw daw daw doo ko raw boo ci doonul dara loo temp temp du la jot <laughs> ah, jërëjëf Samb sëñ Touba moo ni bu la tuuma safloo doxal na nga daa doxee ndax boo ca doonee dara ci tuuma jë loo daw daw tuuma jàpp la moo tax ñu naan telle personne a été rattrapée par son passé boo ca doonul dara loo da loo temp temp tuuma jë du la jot lum yàgg-yàgg ña la tuumaaloon ñooy geesu ni ay léewén la moo tax bañ ko ne day fetal jihaat mu ni axrajtumoo nii ناتخين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد وظننتم أن المدافع عندنا والكل منهم ذو قلل ويحاسد ما نجلد نتل une très belle histoire نحن نقص عليك من أنباء من أنباء رسل ما نثبت به فؤادك la plus belle histoire de Cheikh Ahmed Bamba c'est son exil dëgg la billahi wallahi tallahi benn histoire ci histoire Sëñ Tuubaa mel ni yoonu géej dëgg la bi nga xamante ni bii tuuma yaa ngi daw yonent bi ni ko génnal sa dëkk bii di Touba dem sañ ci Mbacke Bari Mbacke Bari dëkkub maamam la Ahmadou Soxna bu soo ko moomoon mm-hmm. moo ko sañcoon mm-hmm. Mbacke Bari Mbacke Bari ca Jolof ca Jolof mm-hmm. mu jógee Touba dem Jolof sax fa aw kori aw diggi aw tabaski aw tamxarit aw diggi juróomi weer yu manqué tuuti tuuma yi gën a daw lettre yi gën a daw mu fatt sonné yi gën a daw sëñ Touba bind na benn lettre manuscrite ci loxoom tontu tuba bi ndax bobu amul ndigal amagul ndigalal wuy lettre bobé la joxone cheikh ibou Faati rakkam ja cher na nga xamni seigne sëñ ni ibrahim lasi lam yu la fi laa fii siqarihi wala fii kibirihi wa fi xuraa ibrahim lasi lam yukhalifni amran qat wa fi xuraa ken du cher ken du ceerno lay wax nga deug yëkkati lettre ba jox ko diko cher lettre bi yobul mako ko bi seigne tubaa ko bind ci loxom te bo jangé lettre bobu seigne tubaa daf ci melni ko xamni ki dañ ko jign beuti guddi muy soccoo yeeli gone. dëgg la ndax tontu li mu tontu tubaab bi dafa daal di saxal mbooleem lu ñu lu ñu doon naat table ka laam-laamle. dëgg la lettre bi daanaka daf koo saxal. dafa wax ni fa innahu min Muhammadu Bamba. wasalaamu ala man ittabaha al ura ila amiri nar amma baadu faalam bi anni laa aktub wala aqulu bi lisaani ma lam yaqul fi qalbi moo tax sëñ Tuubaa amul un langage protocolaire sëñ Tuubaa nee na du ma wax lu ma gëmul du ma wax lu nekkul sama xol

ولا بين بوس داي لا واخ داف اون دوموند مانوسكريبت ان ساز ناخ دوموند مانوسكريبت بوكو جوخي داي كو خول سا مبند لي غرافولوك بون خولي سا مبند تي لا ني خام ساي فيرتو خام ساي ديفو خام ساي كاليتي بو دي غاو مير بو دي كو تان بو دي كو سير كو خول مبند مبند خام نيت كا سيغ توا بند مبندوم لوخوم توك بوروم دا يابال فاركا ميتام تيرنو دي نداول خون ام فيرر كات فدوير كات neen batt ak sañ Touba. ñu yónni ko ci le gouverneur général de l' Afrique occidentale française. bi Thierno dikkee li mu njëkk a perturbé mooy. protocole bi dox ci gouvernance bi. ndax courrier dafay jaar ci secrétariat ñu di ko véhiculer ba mu yegg si ko tax a jóg. Thierno ni loxo bi lettre bi yeddan bi yeddin loxoom ak loxo gouverneur. ba insister ñu door koo may loolu. bi mu joxee lettre bi gouverneur bay bëgg a dem gouverneur téyelu ko ñu téye ko. mu jàkkaarloo gouverneur muy koo xam ni kii gouverneur général de l' occidentale française muy koo xam ni kii nit taxaw da jàkkaarloog moom ba tubaayam rott yëgu ko may o oh, bu ma kër baaram nar billaaxe ay góor cerno ndar kër baaram ndar ndar billaaxe yaay góor maam Daaru yaa jëkka dem Ndar yaa jëkka dem Ndar jëkkër borom Ndar jëkkër borom yaa jëkka dem Ndar moo jëkka dem Ndar jëkkër borom Ndar billaax yaay góor borom ndar dëgër borom ndar billaaxe ay góor dem ndar moo ci maam cër noo dem ndar yóbbu leetar bi ah, tubaab bi nag di def xam-xamam ci Thierno hmm. taxawal ko jàkkaarloog moom. xam na moom tubaab bi lu muy peese. waaye góor yi nitug yàlla ak nitug adduna dañoo bokkul. nitug yàlla ay garaatam cim ndoddam lay nekk nitug adduna ay garaatam cim dënnam lay nekk. moo tax ku ku baax ku ci mas a xam ginnaaw boo demee lañ la xam. nitu adduna nag ay garaatam cim dënnam lay nekk. boo jàkkaarloogum sergent xam ko boo jàkkaarloogum général xam ko boo jàkkaarloogum capitaine xam ko ndax seeni garaat seen dën lay nekk. tubaab bi jàkkaarloog ceero di ko xam nga sunu borom dafa wax ci sotu rahmaan sotu bayaan. والسماء رفعها وضع الميزان الا تقعوا في ميزاني نيت كي بوي واخ دغ داي ام اكيليبر داي دغر نيت كوي فن تانكي لو دغر دغ لا خام خام غوك واو نيت كي بوي فن دو ام اكيليبر تيرنو تخاوا جاكارو بروم دار لي بو كنا ييم بروم دار بي تي تيرنو موي دالغ تي موم اك تاي جي تي موم اك اك آه، فيتوي فيتوي فيتوي دالغي والله ديسان borom daarul moo ba yàgg tubaab mu ni ko laaj sëñ tubaab muy tontu. Mhm. ba yàgg tubaab bi ni waaw ndax kii mooy Ahmadou Bamba. Ceerno yuuxu yuuxu ni ko du man du ma moom mooy sama mag moo ma magee fukki at moo ma yar moo ma jàngal moo ma yónni bis boo jàkkaarloo moom da nga xam ki nga. loolu la tubaab lool la wolof yi sunu classe gi xale yi loolu la ñuy yàq bopp. Thierno yàq boppu gouverneur damay jóg gunge la. Thierno moo yàq boppu gouverneur dañuy dañuy jóg gunge ko kay dañ dem mais mais Alaaji Pape. waaye waaye euh, Pape Cheikh daf ñoo bëgg daf ñoo bëgg a rey. waaye Alaaji Pape Cheikh daf ñoo bëgg a rey Alaaji Pape Cheikh. waaw dafa am lu sëñ Touba def lu jiitu muy dem Mbacke Bari ajjuma ji. waaw dama bëgg moo moo moo moo du du paree ndar. Ah. wax la xew Mbacke Bari ci ajjuma ji mënut a ñàkk. du ci xaj sàmm. trois minutes na may loolu rek. du ci xaj sàmm du ci xaj du ci xaj papa. soxna soxna Bali Muntaxa. Bali soxna Bali yaay taalibe moo ko ñaan de. waaw Pape Cheikh